Euh, mhm. li nga xam ne moom mooy situation bi fi mu nekk nii ak cas Covid yi. Mhm. bi ngeen defee test yi ba pare. waaw bi ñu defee test yi tey ba pare dañu euh, am ay cas Covid yu bees mhm. muy Edouard Mendy Kalidou Koulibaly ak euh, xale bi Famara Famara Diédhiou Famara wala ma ko fàtte parce que sama doom la ñu dëkkoon <laughs> alors léegi nag bi loolu amee. dañu waroon dem entraîné vraiment 14 heures fële ba Fossam ay na di fi ñu entraîné démb mais dañu xalaatoon ñu bàyyi ba test yi jeex ñu bañan moom ay cas Covid yoo xamuñu ko si biir bis bi mu def mu yokku alors loolu moo tax loolu mu yéexal suñu entraînement ba tax ñu defaat organisé wu pour entraîner fii sur place heureusement que suñu xarit Guinée sax ils ont bien compris ñoom ñu ngi entraîner plus tard mais dañu décaler tuuti pour permettre ñu ñu entraîner bu ñu problème vraiment entre mun nañu mayante loolu. alors léegi nag bii amee bon ñu ngi koy jël nag ak philosophie parce que ñun xalaatoon nañ ko parce que aussi feebar nekkul rek si ñeneen ñi mi ngi fii mi ngi suñu biir peut-être ñun ñi sax am na mu nekk mais ñun jëluñ suñu ay disposition jëluñ suñu ay matukaay ba nga xam ne duñu buggoon daal même buy ñëw suñu tamit mu mu du ñëw lu bari bari bari loo xam ne nañ ko mën dékku loo xam ne tam na tax ñu am équipe boo xam ne dina mën a ko football parce que man même démb bi suñu réunion bi ñuy doog ñëw mooy réunion bi ñu def chaque fois bi équipe ñooy laaj na coordonnateur bi ne ko mais équipe bu amee ay cas yu bari naka lay demee moom sax xamu koon tontu ma. defe naa tey la kii bi génn tey la ñu doon réunion seen réunion seen commission yi après ñu génn ko après ñu communiqué ne équipe il faut équipe bi am au moins onze onze jours ak benn góol sinon boo ko xam lañ koy déclaré forfait day perte match yi mooy deux bi quoi. mais loolu tam si dafa xaw a doy waar parce que loolu moom lu waar la. parce que aussi Covid bi du faute équipe bi du faute entraîneur bi du faute dëkk bi loo xam ne dafa man pour man bon mënuñu dellu si waat ne waroon nañu def kaan wala waroon nañu ko def mais def ko moom dafa métti. dafa métti si plan organisation si plan xel parce que ñëppay moytu ñëppay moytu seen morom. même ñun joueurs suñu biir parce que keroog sax loolu moo tax ñu en fait. Mm-hmm. parce que bi ngi faroon jóge minuit mais dañuy parce que bëgguñu si avion bi mu am yeneen cas. te effectivement bi ñu defee test yi gis nañ am na yeneen cas c'est-à-dire bu ñu defoon duggoon si avion peut-être ñëpp dañuy wàcc fii ñu positif. Mm-hmm. alors mais nañu sant kay Allah et puis compétition bi aussi ñun ñu ngi pare entraîneur bi loolu yëngalu ko gis naa sax entraînement da yaakaar ne sax kii fi kanam fi Covid te loolu tamit bon c'est comme ça ñoom du ñu ay jooykat moom moom xam ko gis xam ne moom dafa fit fit lay demee bon moom il jël na ko jël bu baax mais ñu ngi organiser waat ñu ngi war a jëjewaat léegi pour seet naka la ñuy gérer cas yi ak président bi. parce que président bi dafa ñu ngi Yaoundé mais mi ngi suivre affaire bi de très près vraiment chaque minute mi ngi ñuy woo mi ngi ñuy seet ah léegi dañu war a dem léegi Kër Mayacine pour réunion foofu. pour xool naka la ñuy organiser waate par rapport ak Covid yi am ñu seet naka la ñu koy ak gestion groupe bi gestion lieu bi yëpp te léegi lañ ak docteur bi tout l' encadrement la ñu fa war a dajale pour xool